barki Serigne Touba. boobu gàttan gàttan naka mu. gaa ngóor tarke daa yaa noonu. man di waa di xaar seen waa di xaar champion bi bëgg naa la. bëgg de sama gars yi caar naa leen. bëgg yoon bi waa xanaa ñu mën a jël gaay

doomu dëkk bi ñëw na Siteu Siteu ñëw na doomu dëkk bi ñëw na doomu dëkk bi ñëw na baa ngi noonu Siteu ñëw na Siteu yegg si na jàmm gan Siteu yegg na jàmm gan xool leen convoi bi xool moo xool leen bi mbooloo bi day mel ni Siteu day day bëri day génn tey war a dem arène nationale xool leen lii xool doomu jàmm bi xool leen Siteu xool leen Siteu doomu jàmm bi xool leen Siteu xool doomu jàmm gan baa ngi doomu jàmm gën bàyyi noonu doomu jàmm gën bàyyi noonu doomu jàmm gën bàyyi noonu noonu jàmm gën te yegg si na doomu dëkk bi yegg si na doomu dëkk bi yegg si na te yegg si na. Ndakaaru Ndiaye te jóg sama maam nga ne lan déggu ma Siteu ñëw na loo wax déggu ma nga ne lan Modou Lo ngeen am Modou Lo Modou Lo ngeen am Modou Lo ngeen am Modou Lo Kër Mbaye Fall gaa yaa jël Siteu ànd ak Siteu Siteu ngoog ñu ànd ak Siteu ay waay Siteu ngoog tarki naa baa ngoog di génn Siteu ngoon di génn Siteu ngoon di génn Siteu ngoon di génn Siteu daa war a génn Siteu dafa war a génn

baa ngi noonu Fidèle doomu dëkk baa ngi noonu doomu dëkk baa ngi noonu Fidèle Serigne doomu dëkk baa ngi nii Fidèle doomu dëkk bi ça c'est beau ça c'est beau ça c'est noonu maa ngi liggéey jar tabax mais dina gis Siteu indaale masse boo xam ne euh, lan moo waral loolu mbër bi ngay am moo tol noonu wala combat royal bi wala da nga préparé pour leneen. waaw xam nga xale laa rek damay liggéey rek xam nga yéen a gis masse mais man dama demul liggéey liggéey ba pare làqatu liggéey lu métti waaw ku ma gis xam ne dama doon liggéey waaw li mag si wax naan na maa ngi liggéey maa ngi liggéey jarul wax baal ba nit ñi gis la te baal leen ba mu sumbeeku nga xam ne li may uti dama ko bëgg. dañ koy jëli nga nekk Amérique am loo waxoon Modou Lo ne ko li nga dama koy jël boo ci tege sa loxo damay dagg jaasi daa indaale. ba léegi yaa ngi ci du Modou Lo kese de. li ma moom laa la wax. ku ci teg loxo ma dagg sa loxo. lan nga moom lan nga moom. gis-gis la dégg-dégg la gis-gis la dégg-dégg la. Adama Gueye Adama Gueye doo ma déglu. ay ma wax man maay wax. voilà. eh li ma moom laa wax. dama la ne ku ci jege ma dagg sa loxo. yéen da jël wax ji laa xaw Lo rek. ak ñu dul Mourlo ñuy bañ. Ah. mu parce que Siteu dafa nekk ngi ñëw te bu ma ñëwee ma la déclaré. dama la ne lamb man maa moom lamb lamb. lamb bu doon société. da nga ni déglu lamb lamb maa moom làmb làmb lu mu laaj maa koy def man maay dundal lamb dégg nga aar la waaw te saa yu ma ñëwee nag benn bu ci nekk yeewu. te eggaguñu novembre des na ay ñeenti weer ngeen di wax mel ni suba la eggaguñu de dañuy soog a tàmbali. ndax xalaat nga si ta delluwaat Amérique delluwuma su ma jógee fii nii maa ngi si tarki tarkindaay ñu wax ma fuñ ma bëgg a dugal ma dugg foofu. man volant bi rek laa si gu mujj gi. xam na. waaw may leen ma waay baax na sa waay waaw. waaw xam nga làmb dañ leen doon jiiñ tuuma rek hmm. mais fii la war a setee parce que Modou champion la Siteu sampion la te Modou li mu def nii di bëreeg man lii mooy yéene hmm. kon man waruma wone lu dul yar ak teggin te man moom laay séntu te si laay dox ci laay dégg sama tàng te ku may àndal ci lool laa lay woo ku ma bëgg si jàmm mais dama la ne làmb man damay làmb lu làmb di laaj loolu laay def ñu ne mbër lañ te bu ñuy bëri ji képp ku ñuy sant ku ñuy topp bu dee supporter dañ la ne solol lu rafet sangul ba set sol lu rafet ñëw toog kuy mbër dañ la ne lépp lu mu laaj ñëwal bu dee abu ñaase fi mu ko war a joxoon mu dem defal ma ko dama ko koy wax mu dem def ko bu dee sita ba digg géew ba dama koy lijjanti mais alors que gis nga ñuy wax làmb mënul yem ci benn loxo lamb fukki fukki loxo ak ñaar téego mooy promoteur bi bu ñëwee kii ñëw kële ñëw mu daal di neex mais képp ku yaakaar ne lang gi sa làng la yaa ngi nax sa bopp fii laa yem nag la sept di mm-hmm. jox rendez Boy Niang teg 16 Guédiawaye. waaw Modou waaw nga waaw amagum confirmation wala Modou la ne roi des arènes laa la wax mbaxane bi man bëri may wax nii li may tëggaleel mbëri man duma ci kenn mas ngaa dégg Siteu ku juddu rek ñu ne la Siteu turandoo rek nga ci dégg mas ko dégg waaw maa ngi nii nag waaw. lu sama yoon lan mooy sama yoon si li nga may wax ba beneen yoon le set ngi nuyu monde entier di nuyu Sénégal yëpp di nuyu département Pikine rawatina arrondissement yi di nuyu population Diamaguène bloc 16 te poste Thiaroye à Fass Mbao li waral wax ji lenn la rek ñoo ngi woo képp kuy autorité nga dëkk ci dëkk bi te xam ne fi ñu jëm vers l'essentiel la tudd muy borom dëkk bi dafa ñëw yalmin bi ñuy waaj combat royal ñuy ñaan képp kuy autorité c'est une première dans l'histoire de Diamaguène un fils de Diamaguène di préparer combat royal kon ñoo ngi woo population bi yëpp képp ku nga xam ne personne ressource nga dignitaire nga gën ñoo ngi lay woo ci combat bi nga jàpp ci yaa xam sa doole yaa xam sa doole poos yaa xam sa xel yaa xam sa xalaat incha allahu rabbi borom dëkk bi dam ñëw indi ndam li incha allahu rabbi loolu daal la ñuy woo population Diamaguène yi di rafetluwaat waa Diamaguène te xam ne dañoo bëgg seen doom en route vers l'essentiel le futur roi des arènes incha allahu rabi. ba li may wax rek kon ginnaaw kàddu yi nga xam ne moom la nooree nii dé déclaration du war a def jëmale ko population jàmm ga dégg na ko waaye ñu jëm ci nga xam ne nag moom mooy euh, yalmin bi borom dëkk bi nga xam ne aéroport Diass ba jàmm gan embouteillage bi. Mhm. loolu suñu borom moo ko defal surtout ñu bàyyi laa gën yooyu ñu lay seetaan. di wax ne jërëjëf di nuyu àdduna di nuyu sumay mbokk di nuyu jàmm gën bloc 16 bi di nuyu suma yaay di nuyu suma famille di nuyu jàmm gën bi nag bloc 16 bi li ko talee Poste Thiaroye ba fas Mbao sam-sam yee di sant waa Lamsaar Poste yi ñëpp maa leen di bëggee di bëggee waa Tëngéej sama sama sama sama sama 16 sama ville maa leen di bëggee bu baax waaw di wax ne gis naa lépp di nuyu suma xarit Babacar Xuma beneen bi may wax di laya foole séeréer bi nuwana laya o séeréer mi gidmam simnam ka hatuna kina le jongwar bo ñojor bo fayako fop mi simna den yande nga gram bi nun ndokor nun nda nun laden nga combat van ke combat nun ref ref combat es combat séeréer ref nun njuun cuwana nun lendu nga nun sumna no yi gidma jongwar fop waaw di nuyu ñëpp di nuyu journaliste yéen ñi nga xam ne dañu bàyyi seen lépp ah boobu léegi ñu ànd liggéey bi kon bu dul dara ñu taxaw nii waxtaan vrai temps bu ndaw ñu def ko waaw. Siteu mbooloo mi la topp. dippe aéroport. Mhm. ba jàmm gën say am di jàmm say xarit say nit ñëpp namoon la. waaw di leen sant rek ñooñu. waaw di leen wax ne loolu dafa yàgg loolu di dibi mbapat la. yee bañ ma xamee moom nag mën naa la ne 2010 ba léegi maay ànd ak ñoom si arène bi kon yàgg na trop.